voilà chers téléspectateurs on est euh, de retour di jaajëfal bu baax ne na Aïcha Ba mi ñu doon jukkil euh, xibaar yi Gaston comme ni ñu ko déggee euh, jàngoroy coronavirus bi laataa ñoo dellu point bi ñu nekkoon ñu ñëw foofu un peu tàmbali nañ am ay cas est-ce que Sénégal xawuñu lajj un peu ci dispositif bi ñu doon tekk aéroport. Sénégal Sénégal lan lu xew ñu ne lajj. <laughs> depuis le début li li nguur gi doon bàkkoo mooy teg nañu ay dispositifs. aéroport effectivement effectivement teg nañu ay dispositions disposition du ci coronavirus rek la commencé mais Sénégal mais palidisme grippe ñoo gën a graaw euh, lii. Ah te fi la ëpp mhm. te dafa bari li muy rey euh, coronavirus reyu ko mais c'est que Sénégalais ñoo bëgg événement tey sax am na rajo bu ma télévision boo doon seetaan tey suba ñu nii. am kuy wax xam nga rek euh, yéen seen euh, collègues yi seen confrères yi da ngay waaru léeg-léeg ay ay euh, sànnikatu xeer rek ay yàqkat yu bëri ay donneur de leçon yoo ci nu dara ñoo ciy nekk taxaw di wax ni wéy coronavirus bi dañoo commencé joxe xaalis Sénégal il fallait que moom séddu moo tax mu déclaré c'est des faux c'est des faux c'est des un journaliste. billaay tey suba maa ko dégg du ma wax moo ko dégg mm-hmm. waaye moom si hmm? coronavirus boobu yaa ngi wax ni. Mm-hmm. Sénégal dañoo bëgg wax rek ci wàllu wi. Mm-hmm. mais tey gis ndax xel mënul tey bu fekkee ni dañoo gis ne euh, ci àll bi am na ñoo xam dañuy jur seen doom dugal ko ci paan dem yóbbu hôpital. parce que amuñu nu ñu jàllee ak moom euh, tey ji coronavirus fël rek ñu jël lu ëpp milliard dugal ko ci biir loolu tamit. mën nañu waaw waaw waaw mais mais mais. xam nga koy ko doon yàlla xam na ne jubluwul sax ci euh, fi am ba koy su sañoon benn cas fi am. moom mais comme benn kaa am ñu suñu xel yëpp ne euh, mais ba léegi mais ba léegi ñu ngi. mais am na ñoo xamante ni wax man biig rek biig rek dem naa aéroport. mais ba ba léegi dara mais tey ñun ñoo ñun ñun Sénégal ñun ñoo mën a yàq sunu bopp ñun ñoo mën a indi ay difficulté suñu bopp mais coronavirus feebar la yàlla na jeex takk ñi mu dal yàlla na nu tane jàmm yàlla na fi yem. moom la ñëpp bëgg kuy sénégalais moom ngay ñaan moom la président Macky Sall yi ñaan moom la sëriñ suy ñu jiitee ñu tedd ñooñu moom la ñuy ñaan mais nag bu ñu jël rek bu ko fii lu fi xew rek ku ci amul ku ku toog di togg sa kër sax ci kaddir ga tuuru nga ni président Macky Sall tuur kaddir bi moo tuur sama waaj mais nan ba mais mais mais dans quel pays nous sommes waaye ñoo wax daal ñun ñu gis. waaw mais xam nga boo ñëwee taxaw ni askan Sénégal jël na disposition yëpp. ngir mën a fàggandi askan wi. ci papa nga may ma foofu nag. ngir mën a fàggandi askan wi ci coronavirus bi. Hmm. ñu teg ci matu sax ayu bës ñu am ñaari cas loolu nit nag seen xel dina tey nag. te suñu droit la nag mais dëkk yi am ay cent deux cent cent cas. ñun waxuñu dëkk yooyu. ñun ñu dëkk ay ay ay nit lañu ay jullit lañu ay dëkk jullit lañu ay nit lañu ñu yàlla sàkk aussi. Mm-hmm. tey ñun yàlla dugal na fi ñaari cas yàlla na fi yem yàlla na bu mu yokk yàlla na ñëpp tane loolu rek la ñu war a ñaan yàlla mais loolu du affaire politique buñ ko du président Macky Sall du kenn waaye jub làmb di bàkku nag moom mais mais xam nga loolu defoon nañ ko fi xam nga xam nga fii la bateau Joola suux fii mhm. booba booba sax fekk nañu gëm yàlla ñun ñëpp mhm. ñu teg ko ci ndogal boobu mhm. te d'ailleurs looloo may Abdoulaye Wade chance mais loolu yàlla na bu mu fi amati mais loolu lu mel noonu fekkoon na jamono ji la fu nu ñi nga xam ne lu nu taxal rek ak lu nu lëndëm rek la ñuy wut. d'accord alors euh, sa sa xalaat ci coowal troisième mandat bi nga xamante ne moo tax te ji waa APR di rayante seen biir mën nañu waxee noonu. Mhm. tey yow euh, nan nga gisee euh, loolu. troisième mandat mais troisième mandat man gisewu ma ko nen lu. xel na ko wala xel nangu ko. <laughs> xel mën na koo nangu xel mën na koo bañ a nangu. ah naka waaw may déglu. xel mën na koo nangu xel mën na ko bañ a nangu. de façon li ma wóor ba mooy le président Macky Sall waxul kenn dara. man pour man président Macky Sall loolu sax nekkul ci xelam. président Macky Sall lu lu lu apaiser Sénégal lu lu stabiliser Sénégal lu jëmale Sénégal kanam lay wut mais tey yow kii benn deuxième mandat bii mu am nga xam ne mi ngi soog di door un an baa ngi soog di mat euh, mu ngi soog di féete adversaire bi ku nekk yi jóg troisième mandat quatrième mandat cinquième mandat mais et puis dañu travertir sax euh, pensée euh, Boun Abdallah Dionne parce que Boun Abdallah waxul sax waxi mandat xam nu mu wax que euh, pensée Macky Sall. egg na ba horizon 2035. egg na ba 2035 mais. mais 2035 mais ba léegi ñu ngi ak pensé Senghor ñu ngi ak pensé Abdou Diouf. ñu ngi ak pensé Abdoulaye Wade. mais sa pensée yow parce que da nga ne xel mën na koo ndangu ci naka. mais mais xam nga tey man est-ce que xam nga conseil cour constitutionnel du ñuy wax man nañ koo seeti sax mën nañ koo seeti. Mhm. mu ni président Macky Sall mën naa def troisième mandat président Macky Sall ni moom du candidat. d'accord waaye kër mën na kon yow da jàpp ni lépp mi ngi aju ci wàllu yoon. waaw ci wàllu yoon même dama yoon googu mën naa wax ba pare sax président taxaw ni moom du candidat. kon yow mën ngaa jàpp ne yoon mën naa wax. loolu jàpp mais yoon mën naa parce que ci constitution la nekk. bu yoon waxoon président ne ok accepté na yow da ngay wéy di ànd ak moom ci loolu. damay wéy. di ànd ak man lu président accepté rek ma ànd ak ça a le mérite d'être <laughs> clair. voilà. d'accord. mais mu moom. d'accord mais mais kon yow sa position ci troisième mandat ça dépend ci ni président Macky taxawee. mais man dama man dama waxagul waxi troisième mandat troisième mandat. Mhm. tur sax le président bis bu président Macky Sall ne troisième mandat ma ne troisième mandat. ba pare nag taxaw nag ñefe ko nag xool xeexu parce que ñii di wax yëpp di wax dañuy xeex ak kenn du ci xeex dañuy coow rek. ñu jàpp benn nit ñaari nit. ñu nekk yu wëndeelu. yaa ngi défendre président mais tey euh, bu ñu waxee ci bilan président Macky Sall. waaw ah, loolu année bi yëpp <laughs> <laughs> bu ñu ko gisee <laughs> bu ñu gisee euh, bilan mm-hmm. président de la république euh, bari na ci ay sénégalais yoo xamante ne nii gisuñ ci seen bopp ndax dëkk bi tey la gën a métti te choix bi nga xamante ne nii moom la président de la république def am ñoo xamante ne d'accord ñu ak moom ci loolu. rawatina ci wàllu transport yi infrastructure yi gis nañu ni dette bi tamit daf ñu sonal. xam nga nag ñooñu. ñoom Macky Sall président Macky Sall dafa wax dafa programme ñu fal ko nañ xaar ba euh, leen ko falee egg. Mhm. mais mënunoo fal nit ba pare di ko fakastal président ñoom ñëpp président Macky li tax yàlla jox ko nguur gi xam na ni euh, yàlla bañul Sénégal. Mhm. nan nan xaar mu sottal mandaam moom programme am la teg ñu ñu nommé ko fal ko. dañ mhm. ko fal nan ko bàyyi programme. léegi fa benn année bi mu def ci ci ci ci ci ci deuxième euh, kiwam bi nii mandatam bi nii. Mhm. ndax dal na xel. ah dal na xel kay. ci nag tey Sénégal yëpp ay chantier la mais nag dañoo yàkkamti ñun man euh, y a quelques années à Paris soo jógee aéroport jëm jëm république da ngay fay ay plus de cent euros. or que temps normal cinquante dollars nga doon fay parce que booba ñu ngay liggéeyaat defaraat tey soo demee tey États-Unis Dubaï partout dëkk bu ñuy liggéey bu nekk en chantier il faut nit ñi nangoo muñ ku bëgg lekk nen da nga ku bëgg a lekk omelette il faut nga toj nen yi tey dafa toj lépp di defar tey route ngi nii bu jëm ba Ndar jaar ci booru géej gi loolu dégg bu pare gis nga tey chantier yi ñuy wax euh, noo ngeen ko tuddee sax ay kàmb yooyu ngeen war a wax ni waxtaan. Ah, ah, yéen yéen parce que doon ngeen waxtaan <laughs> yooyu ngeen di wax noonu. Ah, yooyu yëpp ci chantier la. est-ce que priorité priorité la ci moment boo xam ne la santé est la jàngalekat yi ñu ngi yuuxu tout le temps njëkk yi ñu ngi koy gën di yokku. gis nga et gis nga euh, ci temps bi la nekk. infrastructure dara gënu ëpp ko importance ci monde bi. ba ci lekk ak naan. Euh, ñu ngi lekk ñu ñu dama ni ñu ngi lekk ñu ngi naan góoru Sénégal yaa ngi ñoo dàq takk jabar fii te <laughs> duñu wax mukk nan bàyyi takk jabar gi ñoom ñëpp ku ci ne ñi ñuy kaas ñëpp ku ci ne yaa nga sa ñetti ñeenti jabar booleeg di raasaatu ci mbedd yi ñuy wax euh, ñuy wax lu ñuy wax Macky Sall euh, le président Macky Sall. takkum jabar bi mooy baromètre. non non non non non du ba dama la bëgg a wax rek li nga wax rek laa la tontoo mais nit ñaa ngi lekk nit ñaa ngi naan nit ñaa ngi faju c'est-à-dire que nag eggunu à 100 pour cent le président Macky Sall mi ngi def li mu war a def. lépp mi ngi def mais kenn mënu la sottal lépp. ça eh, ça c'est valable pour tous les pays du monde. ci choix président Macky bokk na ci ay institutions yi mu taxawal ñu bëri gis ne amul njëriñ mën naa la ko tuddal benn muy au conseil des collectivités territoriales nga xam ni fan yi leen dégg ci coowum ville de Dakar. waaw au conseil des kooku recommandation UMOA la ak assise nationale. yaakaar nga nga tontu ci question boobu. au conseil recommandation UMOA ak assise nationale au conseil ña na fa nekk ay opposition waa opposition nga fa tous les maires du Sénégal ñu fa ay président conseil départemental ñoom ñëpp a nga fa ñuy def ay rapport pour la politique de la décentralisation ñoom ñoo koy étudier xool lépp liggéey ci ñëw présenté Macky Sall pas parce que liggéey nañ ci que loolu day am mais mi ngi mel ni tey assemblée nationale rek euh, commission santé wala affaires réunir ñu ni ñu def benn proposition ñu ni Moustapha Niass nee neena c'est pas ça nit ñi il faut ñu bàyyi xeex nit ki wala gaawantu. mais question yow lu ñu wax nga ni xeex nit mais tamit nit ki des fois. mais parce que ay xeexkat lañu c'est que c'est que c'est que xeexkat yee yi duñu leen bàyyi nag ñu yàq il faut ñu alerter parce que leen bàyyee nit ñi di leen déglu ci àll bi mbedd yi dañuy defe ne ñoo nekk ci dëgg noonu la réew mi doxe or que réew mi doxewul noonu. d'accord parce que bis am na benn journaliste boo ma sawoo dañ la bëgg a jël ma ne ko non man damaa sonné ci wax ji damay grand soo waxul sa gars yi waxuñu dañuy dem jël ñi ci ñeneen ñi ñu wax. te ñoo li ñuy wax xam ne ñoom xam nañ du dëgg mais loolu la ñuy bind parce que nee na ñoom il faut ñu dund il faut ñu lekk. il faut ñu euh, euh, dund il faut seen i sit dund. moo tax moo tax ñii fu nu waxee nit ñi dana leen war a répliquer wax pour ñu bañ a réeral askan wi sinon dañuy